Euh, waaw di Dakar Midi tey jii équipe nationale bu Sénégal dóor euh, dem final dóor Burkina Faso 3 avec la manière Bamba Dieng tamit dugal na si match bi waaw ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom mu la si moom ñu nar waxtaan ak moom si prestation kii di Bamba prestation équipe nationale. waaw salaamaaleykum euh, di nuyu seen site bu baax a baax di leen nuyu bu baax di leen remercier itam vraiment yéen a ngi jàpp ci événement yi. waaw yéen a ngi jàpp ci événement yi bu baax a baax a baax. Euh, waaw am mbégte contentement rek te xam ne bettuma parce que Bamba Dieng ci Bamba Dieng ci famille football la juddoo ay baayam yëpp dañuy football peut-être papaam moo ci nekk inspecteur police papaam inspecteur police te sama frère la suñ ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay. depuis mu nekk tuut tànk la nekkoon jàmbaar mus bettuñu nag dañ ko dañ koy ñaanal gudd fan ak wër rek parce que dina gën a joxe lii parce que ci football ci suñu xol la nekk waaw. kon Bamba Dieng li muy mënuñoo bett parce que ñu ko gënoon a mën magam a ngi fii Dakar Sacré-Cœur ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay am na rakam di fut magam beneen bu nekk frère bu nekk euh, Diourbel di joué nawetaan Tanor donc moom bokk na ci ñu gën a tuuti ci famille bi. lii la yàlla dogal ñu ngi koy ñaanal rek wër gudd fan yàlla may ko carrière bu rafet daal ba mu jot ñoom Messi ñoom Cristiano man loolu laa koy ñaanal en tant que père. kon doon ñi wax euh, Bamba Dieng wawul titulaire semence bi tey loo leen wax. non kii la rek xam nga équipe nationale comme ni ñu koy waxee ñëpp ay coach lañ quinze millions d' habitants yëpp dañuy coacher mais coach bi coach bi itam li ko li ko li li mu wóolu lay def. Bamba Dieng tey jii bu demee bañ naan na titularisé ak bu mu titularisé bu demee bañ koy dugal muy titularisé loolu moo ko wone parce que euh, soixante-dixième minute dugg na ko fi nekk homme di match dugal bi donc tey buñ ko démarré loo tey c'est normal moom moo ko wone waaw. na nga gisee prestation bi tey équipe nationale gis nañu seen façon jouer ak manque d'efficacité tey euh, di dugal. dugal presque ay 5 buts ay trois 1 3-1 ak 2-0 nan nga waaw euh, équipe buy gagné moom coupe à chaque fois nii lay demee boo rappelé wu ay Côte voir ay Zambie nii lañ doon demee mun ay niil ay match niil ay défaite la ñuy am mais nii nii actuellement nii boo bëggee dëgg-dëgg Afrique moom Sénégal c'est le meilleur moo fi ëpp joueur moo fi gën a joueur. yaakaar nga ni équipe mun na gagné kii di waa Cameroun wala Égypte. mën na ko da koy door score sax Sénégal xajul ci Sénégal xajul ci Cameroun mais nag match boobu yaa am problème parce que arbitre début boobu ba fin gis ngeen ne arbitre yi jàppale Cameroun dañ leen jàppale mais luñ leen jàppale jàppale ci biir terrain bi ñun ñoo mën Cam ñoo mën Cameroun bu dee ci règlement football la ñoo leen mën parce que Cameroun ñoo ay. ñoo leen ëpp ay qualité yu jour waaw di remercier wax la euh, di saluer wax au passage papam sama frère euh, Amet Dieng di ko nuyu bu baax di ko ñaanal parce que moom it nit ku bëgg njaboot la boo demee këram ñu mu jur ak ñu mu jurul xamee woo leen ay frère moo leen yor ba ñu toll nii ak ay sëram ay doom mbaayam ñëpp mënoo cee xamee kenn kan moom kam la kan la boo ndey ak baay ñëpp la uuf kon bu demee tey jii bu am doom ji nekk équipe nationale ñun dañ koy ñaanal suñu doom la waaw. lan ngay population ñu soutenir seen jàppale seen doom parce que fii kenn ku ne sa doom ngay tiitaroo kenn ku ne sa doom ngay tiitaroo même du Diourbel la. ñuy wax ne dëkku Diourbel yow da ngay firndeel Diourbel la xamul tax ñu naan dëkku Diourbel papaam inspecteur police la woon. papam inspecteur police la woon. Euh, Pikine la nekkoon ñu ngi ko doon woowee Rick Hunter. booy seet anciens yi nekk Pikine yu bëri xam nañu Luc Anteur Bamba Dieng Pikine la juddoo mais papam ak yaayam papaam papaam bi ko jur Diourbel la dëkk papa maam ay maamam Diourbel lañ dëkk waaw région de Diourbel lañ dëkk génnuñ Diourbel parce que euh, maamam bu jigéen mu ngi jógee euh, benn village bu ñuy wax ndànk ndànk seen fa la Tanor Dieng policier la woon ancien policier la donc moom famille yëpp Diourbel la Diourbel la juddoo fa la dëkk. di ko ñaanal yàlla musal ko ci seytaane ci ndog làmmiñ ak euh, jëf yu bon yi gars yi defante xam équipe nationale ko xam xam ne dafa diis ñëw fi football gis toj tojaat yombul. donc ñu ngi koy ñaanal ku ko mën a jàppale ci ñaan nga jàppale ko ku ko mën a jàppale loo loo ko mën a jàppale rek nga jàppale ko waaw. parce que xale la xale bu ndaw la. boo amee 21 ans ci la yem xale bu tuuti la day door a pertinent te mu ngi def résultat yàlla na ko cat seexlu yàlla na ko yàlla musal ci làmmiñ ak yeneen ak yeneen